buur combat rëg-rëg mhm. ak Sa Thiès mhm. barke xaadimu rasul wallahi wa rabbil kaabati lii mhm. may wax sama bàmmeel laa taxaw di ko wax jox nañ ma ci xaalis boo xamante ne si di ma ci liggéey loo loo xamante ne si ci ci côté Sa yaa ngi dégg maanaam ta loolu su ma ko nangu woon a jël maanaam bu ma neexee ma ne la man naa toog juróomi at du ma soxla dépense ci combat rëg Sa lu bon lañ ma ca doon def loo moo tax nanguwuma koo def daa koo xam ne daf maa woo daat may fay 6 million la ma nangoo jox. juróom benn million. pour maanaam ma fas Sa Thiès mu paralysé ma ne ko wallaahi loolu du ko def. oh te te mi ngi may dégg maa ngi koy dégg su ko neexee maanaam su ko neexee audio yeeg appel mag yëpp mi ngi fii. ma ak sëriñ si leen xaalis jar. ne ko loolu du ko def te gis nga Sa taxaw na ci combat bi xeetu position boo xamante ne si. Mhm. maanaam fi mu taxaw baax na. ndama koy waaw ndam a ngi koy xeeñ loolu moom yàlla na yàlla xeeb dolli waaye mën naa am mën naa am man naa am mille chance ci làmb mhm. yaa ngi dégg man nag waxuma ne kenn mooy daan wala xeet yooyu jërëjëf mbokki internet bu ngi leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel Dóoru nee naa lii de moom sëñ Seexu naa rek ko am. émission yi moom gars yi baatu buur rek la ñuy dégg. waaye tey buur a ngi ki ma ko jaral di sant Seexu naa Jóob góor yàlla. Mm-hmm. naa la suma diggante ak moom yàgg na. jóge naa fi ba taay fekk ko lu muy defit boole ma ci ngir jëmm yàlla ak sëriñ bi tey nag du ñu seet si ko ci këram encore këram gi nekk Ndakaaru macha allah sëriñ bi gisuñu kër gi mhm. euh, yàlla yàlla barkeel ko di sanc bu bees loo fi naal yàlla na nga ko yeggale fi barkeel Cheikhul Khadim sëñ Cheikh naa ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga néew ñu lay seetaan ak buur gi sur bi promédia xanaa tey lii moom jaaxal na gars yi de waaw tey moom di jaaxal na gars waaye yow dangay sama nit bu ko defee nu wax mhm. wajaxal kalaami mhm. rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida noo ngi nuyu ñëpp te di leen siyaare di jiital ci sunu nuyoo ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha buur mu yàgg fi lool tànn ku wér waaye di ñaanal sa yëm ni Modou Mbenda Fall itam mu yàgg fi lool tànn ku wér di ñaanal sama wasila si Hamzatu Mbacke mooy mu yàgg fi lool tànn ku wér borom waaw di gërëm mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ñuy suivre mhm. di seetaan ci biir réew mi ak bitim réew mhm. di ñaan yàlla na nu yàlla wax loo te déggloo leen te lépp luñ fi wax rek noo ngi fas yéene mu doon loo xamante ne si ëllëg yamal bu ñu taxawee di ko fa kanam sunu borom doon ci ndax buur jamono daa toll foo xamante ne si jamono ju naqaree waxee la waxee nii ndax mhm. jamono joo xamante ne si tey lu nit di wax rek ñu jàpp ne ay pexe la wala ay nangam la mhm, mhm. mais yàlla seede na ne am na ñoo xam ne leeral xam-xam moo leen tax a jóg bu baax a baax kon noo ngi bëggee ñëpp te di leen ziare di ziare sunu caméra bu baax bi di la ziare bu baax euh, sëñ buur ndax tey ni nga ko waxee rek da nga ne ma sëñ Seexuna da nga ne ma man àgg naa ak yow foo xamante ne si mhm. ñi may ak ci yow di ma sant di ma gërëm ci say mhm. résultat mhm. tax na tey faw damay génn ci émission bi man la yow sëñ buur noo ko bëggee rek garaawul mais man li wér te wóor moom mooy ragaluma ànd ak kenn di def émission dëgg ndax li tax mooy man képp ku ma jëflanteel ku ne maanaam bu la neexee mën naa laa wax fi may fekk mën naa laa wax heure bi may jot soo ma bëggee gisit man naa laa wax maanaam heure sàngam ne la boo ñëwee fekk ma bërëb sàngam ndax man aw ma peleñaa ci ñaan pour man maay sel sëriñ boo xamante ne si mën naa laa wax ne la képp koo xamante ne si mën naa wax ne naa Jóob moo lekk sama xaalis te defaluma la ma bëgg na ma pelente wala mu capturer preuve yi yónnee la ko rek ma delloo ko hmm. xaalisam. bu la nit ki bëggee sonal ci kare kare sax léeg-léeg ñu ne ah sëñ Cheikh naa naa naqaree jot su ma la koy jox ndax man moom li may def. Hmm. coono gi ma ciy son di jaabante àll ba lu ne ma di ko def boole ko gi def bay def social ci ñaan yàlla. Hmm. donc aw ma jotu yenn yi vraiment. waaw ndax sëñ Bour day am ñoo xamante ne si dañ dul comprendre nit xam man tey ku mel ne man damaa yor daare alxuraan. di jàngale. yaa ngi dégg kon su ko defee day am yoo xamante ne si faw yow da ngay nekk ci daara ji toppatoo gone yi ba noppi maanaam temps bi ngay amaat ci sa bopp akus néew nag ci ngay maanaam mën a taxawoo nit ñi ci wàllum ñaan yooyu mm-hmm. kon day loo xamante ne si day tax bu nit ki bëggee seet ak yow dëgg mu comprendre la su la wooyee jotulaat maanaam mu xam ne dangaa nekk ci liggéey bi wala nga nekk ci beneen liggéey bu dul boobu ndax man damay faral di wax ne ñaan ajuma ci sama mbir mhm. man damaa yor samay business di liggéey yor sama daara di jàngale maanaam xaaruma suuf waaw mhm. yor samay tool di bay mhm. xaaruma dara ci ñaan kon lu mën a xew rek maanaam nañ xam ne jot wala ñàkk jot mooy demee noonu te ñun ñu ñuy soxla day xaw a bari su ko defee maanaam kon ñu ñëw ci dëgg-dëgg yi mu ngi noonu Serigne Cheikhouna Diop ni ma leen ko waxee nee naa leen sànq buur li mu def nii du ku ne la koy defal. Mhm. dëgg-dëgg kon su ma demee rek ba fësal sama image. ci mhm. moom. Mhm. te ñaankatu yàlla yi ma xam bari na. mooy jikkoom moo tax. ak njubam ak ngorom ak mbaaxam. ak ñàkk gi mu ñàkk caaxaan. dama ne kuy tuddoo sëñ Hamsatu Mbàkke. defe naa ne doo def te digganteem ak sëñ Amsa hmm. Sénégal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp xam nañu ko hmm. a amatul sikki sàkk amatul wante sëñ Ama sëñ Cheikh hmm. fi may njëkkee mooy li Sénégal gi yëpp jàppal woon ni kenn ci mën dara muy yow sa jëmm ji ba faf léegi ñëpp bakkook yow muy wàllu noob waa sëñ noob moom damay faral di wax ne sëñ Buur man saa su ma nit wooyee ne ma dama bëgg ñu jëflante mu ne ko ci wàllan bu ne ma mbirum nopp damay damay dóor sama tànk bi ci suuf mooy damay fecc ba noppi <laughs> li tax may fecc ba fecc ba noppi. <laughs> li tax may fecc ba noppi mooy. damay xam ne li ma gën a maîtriser li ma gën a man la may def loolu. Mhm. sëñ buur bu ma neexee ma yëkkati sama loxo waat ne tàqale ñaar ñuy ànd ak boole ñaar ñu nanguute ànd nit mënu ma ci. Mhm. wallaay lancim fekk ñaar ñoo xam ne seen diggante daara taxoon lool ba ñëpp ne gongo. ma tàqale leen ba mel ne xaj ak muus ak fekke ñaar ñoo xamante ne si maanaam dañoo meloon ne xaj ak muus ma tàqale leen bañ mel ne mburoog soow maanaam mburoog soow wala ñu mel ne doom ak ndayam mm-hmm. sëñ buur maa ngi lay ne am naa nopp goo xam ne su ma ko defalee nit ni doom di bëggee ndayam noonu la ko borom këram di bëggee wala noonu la ko soxnaam di bëggee mm-hmm. sëñ buur am naa goo xamante ne si su ma ko defalee nit ni ganaar di toppee ñi cuuj di toppe ndayam noonu la koy toppee moo xam ci góor gi moo xam ci jigéen gi sëñ buur am naa nopp goo xamante ne sii su ma ko defaree ba noppi maanaam ni xaj di toppe borom noonu la waa ji di toppe borom wala ndaw si sëñ buur ma dina la xamal ne am naa nopp goo xamante ne sii su ma ko defaree ba def ci ba def ko ci teen teen boobu bu ca kenn tànqee naan wala mu ca sangu maanaam ñaar ñooña maanaam dootuñu ma a tàqale ko ba ilaa yawmil abad te seen diggante kenn dootu ko mën a yàq jaaxal ngeen noot yu bokkul yi nga amee man fekk naa la Touba fekk naa la ci bu ni saa la nootu buumuk fàlle gis naa la ngay nopp ci ay fas. waaw xeeti nopp yooyu mais su ma waxee rek benn baat nga may tontu. mooy buur man xam-xam daf maa jaral. waaw tey buur su ma xamoon ne bu jëlee ceew léegi benn secret jar na maanaam nga jaay ma ko ay millions. Mhm. jar na maa yëkkati millions nga jox la pour tes secret. bu yàggul jugee naa Guinée semaine bii nu génn dem naa ba Guinée te la ma fa wuti woon maanaam ak noob laa fa doon jëndi jëndi ak noob xam nga loolu nee waa nga sëriñ bu koy ba ba Guinée te noob goo ma fa doon jëndi noob la goo xamante ne si suñ su ma ko liggéeyee nii deux daf ci am résultat. ñaari waxtu kot. barke Cheikh Ahmadul Khadim noob gi may defar su ma ko defaree deux heures boo amul boo amul résultat ma delloo la sa xaalis. <laughs> te deux te deux temps yi doo ma fay de danga may jox avance ma tàmbali defar ba nga teg sa bët nga door a mottali moom noonu laa koy defaree. <laughs> maanaam loolu. loolu nag saa bu ma koy saa man li ma gën a neex ci noob googu damay bëgg nit ki ne ma sëñ bi man fu ne jaar naa fa. aw lii dem naa ci fu ne def naa ci lu ne diw lekk la sama xaalis diw nangam ak nangam. waaw kooku laay soxla ndax da ndax li tax mooy damay bëgg su ma ko defee bu sottee rek mu xam ne maa ko def. Hmm. dama bëgg koo xam ne daa jaar feneen di fa am yaakaar wala nangam ak nangam boo xam nga xam ne danaan ñu ma doon ñaanal man damay bëgg ci ki nga xam ne daa wër ba télé ba jàpp ne kenn mënatu ko daa di xool ne xaaral ma isee kii maanaam bu ma isee billahi lazi laa ilaha illa huwa su ma ko defalee bu bu bu gisul résultat lépp lu mas a ñàkk ci ñaan mën naa koo delloo barke xaadimu rasul li tax mooy loolu ndamuma ci mais dama koo jàng ba xam mm-hmm. loolu dama koo jàng maîtriser ko dama cee sonn li ma ci mm-hmm. daj wax naa la ñi may noobloo li ma daj ci nopp ci li ma ci fere li ma ci daj ci coono li ma ci daj ci toog di bind li ma ci daj di topp nit loolu ñoom dajuñ ko ci ba man ku la dégg day defe ñu jot a jëflanteeg jàpp nañ ni noob rek nga mën waaw loolu lay jàpp mais man ci ci ci ci da loolu nag day sama foor hmm. day loo xamante ne si ñaare ñi ëpp ci ñëw ci man loolu lañ may jàmbat tey it koy defaral ñu ciy teg sama bët maanaam sa spécialité la duggal ci sama compte moo xam sama TikTok moo xam YouTube bi benn boo ciy dem ba fekk nit commentaire ci man lu négatif ndax man moo xam ma seetal la moo xam ma noobal la moo xam sax nga woo ma ñaan loo ma ci këyit wala leneen ak leneen wallaahi al-asiim su ma la defalee da ngay am résultat xam nga lan mooy confirmer li nga wax hmm. Euh, lu nit wax ci kaw suuf dana ko xat benn waaye musa ni sëñ Ahmada yi maa ngi koy woo nangam jotuma ko bi ma ko laajee dama ko posé la question ne ko la mu séqoon nag yow def na ko mu ne maa wax dëgg yàlla def na ko ma ne kon lan mooy problème bi mu ne ma dama koy woo suba ba tey mun ma ko jot ma ne ko loolu rek mooy problème bi mais lekkul sa xaalis bañ laa ñaanal mu ne ma ñu mm-hmm. yónnee na ma ñaan yëpp. Mm-hmm. wax dëgg yàlla yonte bi mm-hmm. te la ma ci doon sàkk aussi am naa ko. waaye dafa am keneen ku ma ko boole. xam nga yooyu. dafay jar ji leeral. parce que des fois nit ñi dañu jàpp ni. yow nit ki. Euh, da ngay sax teg pexe ak sa Cheikhouna man buur dépassé naa loolu. yàlla seere na ko. waaye li tax may leeral lii. mooy damay bëgg ñi may seetaan. tey à visage découvert. xam ni lii may wax dëgg la moom wax ci làmmiñu boppam xam naa turam yoon naa numéro ñaan ya séqoon ak man jox na ma ko la ma ci wut am naa ko la tax loolu sëñ Buur kooku dafa ma woo jërëjëf Abdou Sey la tudd yaayam Marème Fall mhm. ñu jëflante mhm. mu am ci ndam mu boole maa ku ñu wax Xadi Fall mhm. mbokk la ci yaayam kookaat ab tubaab takkoon ko ca bitim réew ma defaral ko ba ba ba ba ba kooka am ci ndam léegi nag la tax mooy man la ma ko doon defaral dama ko dama ko doon dimbalee ngir jàmbat ji ma jàmbat. Mhm. léegi nag day bëgg képp kum ma booleelaat mu jaar ci yoon woowu. mais yow jox nga ko ci goo xam ne man ndomba googu da nga koo saraxe. wallaay lancim jox naa ko ndomba goo xam ne bi ma koy jox maam jàmbat ji ma jàmbat boppam ma yërëm ko moo tax ma defaral ko. Mhm. waaye wallaay lancim su ma la waxoon li ma koy defaree da naan déedéet. mais yow naa li ngay bari. non li tax mooy mooy nit ku jooytu la boppam rek. Mm, li man nit day am lu muy dikkee ci man rek faaw ma yërëm ko wallaay lancé man buur dama yor xol bu oyof man mënumaa def lu bon nit mhm. yàlla xam ne ne gis nga buur combat rëg-rëg mhm. ak Sa Thiès mhm. barke xaadimu rasul war a rabbil kaabati lii may wax sama bàmmeel laa taxaw di ko wax jox nañ ma ci xaalis boo xamante ne si di ma ci liggéey loolu loo xamante ne si ci ci côté Sa Thiès yaa ngi dégg maanaam ta loolu su ma ko nangu woon a jël maanaam bu ma neexee ma ne la mën naa toog juróomi at duma soxla dépense ci combat Reug Sa Thiès. lu bon lañ ma ca doon defloo moo tax nanguwuma koo def daam koo xam ne daf ma woo daat may fay 6 million la ma nangoo jox. juróom million. pour maanaam ma fas Sa Thiès mu paralysé ma ne ko wallaahi loolu duma ko def. oh te te mi ngi may dégg maa ngi koy dégg su ko neexee maanaam su ko neexee audio yeeg appel am ak yëpp mi ngi fii. maanaam ak seen si leen xaalis jar. wallaahi la nga ne ko loolu duma ko def te gis nga Sa taxaw na ci combat bi xeet position boo xamante ne si. Mhm. maanaam fi mu taxaw baax na. ndama nga koy xeeñ. waaw ndama nga koy xeeñ. loolu moom yàlla na yàlla xeeb dolli waaye mën naa am mën naa am mën naa am mille chance ci làmb mhm. yaa ngi dégg man nag waxuma ne kenn mooy daan wala xeet yooyu. man it naa léeg-léeg man la dama laa yërëm. si jeex naa charge bi tegu sa kaw. Mhm. nga bëgg ko boole. léeg di social. daf may jaaxal. waaw xam nga xam nga li ñu def mënuñoo ñàkk. di dimbali doomu aadama yi parce que sëñ buur suñu réew mi dafa metti yàlla xam na ne man boo gisee biir réew mi du ma fi ñaanal kenn wala bitim réew ba di ko jéem a metti li tax mooy damaa xam ne nit ñi maanaam li li ñuy li ñuy fayiku maanaam xajul ci seeni soxla kon li ñuy ñaanloo dañu mottaliku rek taman yàlla suturaal na ma ba dimbal na ma ba lu bare bari loo xam ne doomu aadama daf ko war am am naa ko kon man su nit ñëwee ci man lenn rek moo ma dese muy ma dimbali sëñ buur képp koo xamante ne si jëflante nañ muy góor muy jigéen moo xam muy ci mbiru kayit moo xam muy ci mbiru nopp moo xam muy ci mbiru seet wala lu mu mën a doon buur mm-hmm. wallaahi lancim buñ ci jëflante santante ak gërëmante moo ci mujj ndax dinaa ci doxale ak teele bi ba mat sëkk man de fekk naa sa kër ku yëkkati ku yëkkati million yu bari boole kook mbubu yu mbubb yu bes taq yu mu ñawlu waaw njukkale la ko loolu fekk naa ko sa kër loolu moom loolu moom ci yërmande ci ci ci doxale yërmande sama digg loolu li ma ci am kenn mën kenn mënta wax nu mu toll. Mm-hmm. maanaam defal naa nit lu ne ci xeetu yërmande après loola sotti mu wëlbatiku may ma lu ne. Mm-hmm. yàlla xam na ko. Mm-hmm. sa jaw damay dikk ci mbiru tooke. keroog dama la gis nga jën jënd jaal. wax ci lu lu yéeme. Ah. loolu ci sa tiktok sax laa ko gisee. man li ma njëkk a yéem. mooy jaan yi nga yoroon bokk na ci raasi jaan yi gën a soxor. jaan ji najoo bopp bi yaa ngi ko bàyyi mu ngi war a war a seer dama ne naa est waa jaan moom sëñ buur li njëkk ci jaan mooy man fu ma ko fekk mën naa koo jàpp ak ah, jaan ju mën mën a doon fu ma ko fekk sans ma di jat sans ma di def dara mën naa koo jàpp yaa ngi dégg bu loolu jàllee itam mhm. euh, jaan dafa bari muy dindi ci nit mhm. fi mu ne yisaa nga gis nit tooke nekk ci yaramam fi mu ne dangar jooju jaan daf koy daf koy lekk mhm. da koy dindi maam tey bu nit tànk bi ni nga xam ne tànk bi day métti ñu naan góomu robaale la ak ndigg la nangam ak nangam ak mm. yooyu yëpp yor naa sama woto bii jaan joo xamante ne si tey su ma ko laxasee da koy dindi ba set te su ma ko tegee du ko ko def dara mm. jaan mën naa toog trois mois du lekk ñetti weer ñetti weer mën na koo toog boo ko joxee benn nen bu ñurut mën naa toogaat ñetti weer du lekk yaa ngi dégg man de xamul woon sax jaan day lekk nen bu ñor man yor naa fukki jaan ak ñett ci sama woto te néewaa na nit koo xam ne dañuy ànd di dem te du ko xam ci man te xeetu mala yu mel noonu dama koo bari le waaye duma ma toog ak nit ba wan ko ko jooju sax gis nga keroog boo gisee ma yor ko jenn la joo xam ne dama koo jàpp woon ba ñëw ñu naan dana màtteeg nangam ak jii daa soxor ak nangam ma ma ma jël ko teg ko sama kaw pour di leen dafa am yoo xamante ni si tey soo ko soo ko soo ko soo ko utiliser lépp luy loore rek daf lay ragal hmm. loolu day am waaye suñ buur nit ñi nañ taxaw njëkk ci seetlu seen mbir ba noppi. waaw yow de seet li nga ci insisté. Hmm. ne nga nit ki bu seetloo tey sax. Hmm. ñu wax ko sarax. Hmm. bu ko defee bu toogaatee ab diir. na dem seetluwaat ay mbiram. waaw buur dama dama laa waxoon ci mission la jàll ne la. nit ki su xamee saraxu biddiwam. xam saraxu rabam. xam saraxu raw xaanam. xam malaakam kawam nu mu tudd. xam malaakam suufam nu mu tudd. xam ban couleur a gën ci moom. jëratul muy dem ci benn sëriñ di ñaanul. bu nit ki xamee yii. yii bu ko nit di xamee. waaye loolu nag mënu xam ko foog mu dajeeg seen mën a seet. mel waaw kay boo gisee nag ñu baree bari nekk ci mooy dañoo seetlu ba tàyyi ñaanlu ba tàyyi te amuñu ndam la ko waral mooy dañoo seetloo koo xamante ne si mënta seet. Mm-hmm. way ñu seetloo koo xamante ne si maîtriser wul seet. Mm-hmm. sëñ Buur. fukki seet ak juróom benn ci laay seetale nit door koo yàkkal mbiram. seize. seize seet bu may seetal nit dama koy seetal ci suuf seetal ko ci ram seetal ko ci kurus seetal ko ci xalwa maanaam dama koy seetal ci fukki seet ak juróom benn yaa ngi dégg door koo door koo yàkkal mbiram. te yooyu yëpp bu ci nekk lu ci ne day génn résultat ya lay joxe ma door a boole lépp bokk ko te wallaay naa bu ci nekk da nga koy def fa nekk comparé ko. ba ba ba lépp tolloo ba lépp tolloo ma door ko koo jox moom ci jëmmam su ma ko waxee. dana xam ne man mii dama koo seetal te moom ci jëmmam la ma ko wax su ko defee wallaay lancim dina xam ne avant ak après wuute na lool. yaa ngi dégg. Mm-hmm. te loolu seet moo ko man moo tax nit wërta nekk ci kaw suuf di dox sa xamul lan mooy lan mooy mbiram. gis nga umpale mbir ba noppi di dox loolu dansé la loolu mi ngi mel ne ngay dox ci benn àll boo xam ne ay rab nga fa nekk te xamoo àll ba la ca ne seen biir. Mm-hmm. moo xam nga ne ci réew moo xam nga ne ci bitim réew dangaa war a fexe ba xam sa malaakam kaw xam sa biddiw xam sa tabia xam sa rawxan xam sa yooyu yëpp bu ci ne itam ba nga ko xamee ba noppi nga xam luy saraxam bu ko defee loolu ci ngay mën a xam ne yow kat boo doon xëcc dara nga xam ne yow yaay sàkku dara dikkut sa saraxu biddi nga a def su nekkee ne dangaa jekki saay gis xam ne sa saraxu rab nga war a def su nekkee ne dangaa jekki saay gis xeetu tawat nga xam ne sa sa bi su ko xamee te ñun buñ soo doxee ba jekki saay gis mu dëgër defal sa saraxu biddiw soo doxee ba jekki saay gis sant ay tawat boo ko fi mu jaar après da nga koy. ba bàyyi ak boppam dootoo ko soxla. dama koy bàyyi ak boppam yàlla xam na ko. dootoo soxla mu jox lu fukki dërëm. noonoo non <laughs> parce que seet mooy nday mbir yi su ko nit xasee xam ci boppam rek maanaam day daal xam ne moom ci jëmmam maanaam mbiram daf koy mën a téyel boppam bu baax a baax a baax a mm-hmm. su ko defee nag comme loolu laa ci loolu laa ci soññee bu baax a baax. Mm-hmm. maanaam nit ñi daal nañ xam seeni sarax. xam seen biddiw xam seen tabian xam seen yooyu yëpp dana jàppale seen mbir incha allahu taala loolu defe naa ni ba tey dañuy xuus ñun ak yéen ànd ci waxtaan wi nee leen tey sëñ Cheikh naa laa seet si waat sama waa yi man moom ànd nañu nay de ànd nañu Touba ànd nañu fu ci réew mi vraiment waa muy jàmbaar moom i tamit euh, euh, di góor yàlla hmm. euh, sëñ bi hmm. ñetti minute moo ñu dese hmm. waaye fi may doxal mooy ci wàllu sarax dama gis si Cheikh naa li ci ëpp bu waxee nit ki saraxam sax da ko ne demal nga defal ko sa bopp. waaw. ko kooku wóoloo. Mm-hmm. sant ko. Mm-hmm. léeg mooy jugal boppam taal oto. Mm-hmm. dem bu dee jënd nag la mu jënd nag defaral ko léeg-léeg da koy filmer lépp. ne nit ki koy vidéo yónnee ko ndax li tax mooy. taman su ma lay su ma lay defalee sarax. maanaam bu may rendi nag waag yëpp damay woo dama lay woo téléphone joxe téléphone bi nga toog di gis ne ca say sarax ci laa nekk mm-hmm. bu ma koy séddalee yépp damay joxe téléphone bi yow sa jëmm ngay filmé nga xam ne man say sarax ci laa mm-hmm. ndax li tax mooy sarax dafa am dafa am doole ci doomu aadama xeetu am doole goo xamante ne si nit ki buñ xasee xam ay saraxam ba génneel ko ay saraxam rek nee nga ma saraxu jàmbur kenn du ko lekk loolu avertir nga ci sëriñ si ne leen mm-hmm. jàmbur kenn du ko lekk. wallaahi wa rabbil kaxbara yi saa gis sëriñ boo xam ne daa dem ba ci yàgg doomam mënatut a wax. wala doomam mënatut a dox. wala jabaram jeeg saay tawat. wala yaayam jeeg saay nangam. te fekk ne xamul ne saraxi jàmbur yi muy lekk. moom ndax nit ki bu ko mhm. moom wàcc mi ngi mel ne tey sëñ buur bu nit dikkoon ci yow daal ne damaa bëgg nga faatal ma diw. Mhm. nga ne ko temps laa koy defee mu jox la xaalis donte loolu defoo ca dara sax waaye bàkkaar da ngay am yoolu ku rey nit parce que da jënd bakkan dégg yaa ngi dégg su ko defee maam lépp noonu lay demee nga xamante ne si doomu aadama saraxam ëpp naa lekk. Mm-hmm. man buur su ma seetalee nit boo koy saraxam bi ci njëkk dama naan ko xoolal say mbokk. Mm-hmm. koo xam ne mi ngi fii. Mm-hmm. mu defal la ko. wala yow soo ko manee nga defal ko sa bopp. wa ilaa su nekkee ne mënta ñàkk ba mënta ñàkk ma defal la ko. waaye su ma la koy defee lépp boo ko bëggee ak boo ko bañee dinaa ko vidéo envoyé la ko ba nga xam ne def naa. suba ndax ëllëg a tax. mboolem ñi nga xam ne ñi ngi lay woo xam nañ ne lii ci lay jaar ak hmm. ak ak ñu bari ñoo xam ne ñi ngi jëflante damay wax euh, yéen rek dafa message bu may lancé hmm. euh, yéen ñi nga xam ni yéen ay faral di woo sëñ bi des fois muy naqaree jot hmm. man damay nekk ak moom ku yor lu man ñeenti téléphone téléphone yi dañuy dañuy sonné sept heures ci suba ba cinq heures du matin des fois dafay compliqué ci moom yàlla xam na ni dafa jël nit di ko fay xaalis bu bari pour ko rek uniquement mu di ko dimbali ci appel am man xam naa calendrier am mooy bëgg a jaamu yàlla bëgg jàngale bëgg a wéet na ci liggéeyu ñenn ñi te li ci ëpp ci ay liggéeyam quatre-vingt-dix-neuf pour cent moom moo koy defal boppam kon yow mi nga xam ne yaa ngi woo suñu Cheikh naa soo ko mënta jot bàyyil ko vocal yàgg yàgg dinañu liir vocal bi tontu la te yéen ñiy jëflante ak moom it ngeen am tuuti patience mm-hmm. ndax mbir mm-hmm. su baaxee du yomb mbir bu naree gën du gaaw te day bëgg moom lu ci nekk bu nit ki amee yaakaar ginnaaw yàlla am ko ci moom day bëgg jëf jëflanteeg yow bu noppi ci yow soxal seen mm-hmm. sa chana looy tàggoo waa xanaa sant ak gërëm ak di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi bi ci des bi may tëjee mooy ñaan suñu réew mi <coughs> jàmm sax fi mm-hmm. loolu nag woo naa ko jege président moo ko ko mënoon mm-hmm. na wax tuddaw turam waaye dayam yoo xam ne du ko jar woo naa koo xamante ni si maanaam jege na président loolu ma ne ko réew mi ci tàng la jëm réew mi ci deret la jëm. Mm. te yooyu yëpp buñ sañoon réew mi fa man nag woo naa ko jege Ousmane Sonko ma wax ko li ma xam. Mm. gis réew mi dafa laaj ñu saraxal ko ci côté pouvoir ci côté opposant mm. parce que dafa am xeetu tàngoor yoo xam ne bu amee day am sarax yu koy yu koy koy mën a génn waaye lu mën a xew yooyu du waxi kaw waaye noo ngi ñaan jàmm suñu réew mi. Mm-hmm. di wax état na xam ne ñi muy jàmmaar loolu moo ñuy ak lum yàgg yàgg yàgg yàgg. Mm-hmm. day dem ba fi. Mm-hmm. yaa ngi dégg mbaanu dem ba ko fi kon nag ëllëg du añ du reer meelu mat a sedd la. foofu rek laay daane la sama kàddu di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.